koroog esaat bi fu nu baatere rek ma ma ma ma ma dem see ñoom. waaw waaw ban jàmmal ma. te commencement bi dugg si bi lañ ma njëkk xatale mën a tëll ñu ma yow xasee fi duggee baaba jooju ñi nga àndal sol dugg ci làmba ji. bu loolu lu tax. sponsor bi joxe joxe euh, ay blouson am. ñu ne yow kese yaa waaw ma man maa am licence su Gambie man kese dugg seen làmb ko amul licence su Gambie doo wàcc suuf kon ni ma àndal ñi kenn dugg man man may ma dugg man ak sama entraîneur. yaa ngi dégg ak ki toog sama cumbukaay ma ne waa la mu leen dal yaa ngi dégg bi moom mu nga biir léegi moo bëgg a yónnee pour ñu woo bi pour ñu rek la problème boobu ñu ne kenn du dugg kenn aw ma ko ma yónni sax ngi dégg ma ne gars yi xam wala ñooy naam mbay ñoo ne si bi ñi mënuñ ñoo jaaxal nan porte porte bi ci laa diw attaqué ñu force porte bi ñu dugg loolu bu nga teg loolu kon doo dugg billaahi laa ma gi am ndax ma dugg si porte bi mais xoolal ma te nga war a bëri yow man ma a bëri ma ci porte bi ne ma yaa am licence su yow rek kay dugg wala ñii ka laay ci dugg di dagg licence si porte bi <laughs> ah. moom da ngay moo tax ma seen fédération bi xamuñu dara xamuñu dara ndax licence duñ koy daggee ci porte lamb. moom a waaw man mi naan man mi naan sax man benn xaw ma man. foto foto wu ma. waaw yaa ngi dégg. yow amoo yow amoo rek man mi naan yaa am licence ñoom ñoom ñoom ma ko defaral

ku bëre mooy fayeku ku bërewul du fayeku dara waa mais ñoom. fay ñu la ñoom ñoo yàq ñoom ñoo yàq seen lamb cent franc sama ruy oh. man man liggéeyantuma loolu xam nga moo tax adduna mm-hmm. loo la loo ñàkk tey bu la yàlla mayee bakkan rek ba am lu ko ëpp man foofu laay xoolee tey su ma doon dox sa réeral xaalis ma réeral un million dama naa li du soo wërsëg kaka fort loolu mooy wërsëgam kooku moo moom man yàlla dana woon yor ka rek yow baa ma yor mu wadd diw fort kon kooku moo ko moom yaa ngi dégg mm-hmm. kon man sama reliquat bi ñu téye santuru ko sax ndax maa ngi sant yàlla avant combat bi maa ngi doon lekk maa ngi naan. mais waxuñ wax waxoo leen ci dara wala nga woote. man amul benn kayit bu ma Sénégal am fa. si ñëw maag fédération benn kayit si ñëw maag euh, kii Ibra sax euh, arbitre benn kayit. yow kan nga signal promoteur bi promoteur bi laa signal ñu defal suñu. contrat kon promoteur bi war na laa jox xaalis. defal naa ko rek moom laa signal ñu defal suñu contrat fii ci Sénégal mu tee ma jox ma benn ma def sama almuwaar mu yóbbu benn xam nga loolu. Mhm. léegi nag affaire yi liggéey woo naa ko ma ne ko mbër mi na am mu ne mu ne moom sax euh, fédération Gambie dañ koy dañ koy fayloo ay siis ne bi bi bi gars yi ne combat bi yàq combat bi yaa ngi dégg euh, daa am gars yi ne woon si kaw ci loge bi dama ma fa ay siis te nga fayeeku dafa seer instant bi promoteur bi mu ne mu ne moom loolu lay lijjanti mais instant bi taluma ay reliquat loolu la ma promoteur bi moom jamay kee baax nag. yaa ngi dégg. sa waay la mu ne ma nag bu soobee yàlla su bu fekkee jox na ma sa reliquat man ñu la Sénégal bu fekkee jox ñu la kayit. man man dina naa ci was loo xam lu ma man pour nu jox certificat mais fekkee jox ñu la kayit ma xam ne ñoom seen règlement la ma nekk man bër si ñëw ma ci si ñëw ma benn kii si ñëw ma ko Gambie xaw ma fédération Gambie mhm. man laa wax ne kii ci la bokk ma lépp nañ lekk lépp ba lu ma wax léegi rek may ma ñàkk tey bu subaa yalla na ma ko jox wala ma jox lu ko ëpp mhm. ma nekk nañ jël lépp garaawul beneen maa tooñ tooñ gu métti ma tooñ xam nga lan moo tax ñu tooñ ma buur <laughs> mhm. man manumaa ñëw ba ci làmb ji man may sportif damaa dof man ma xam ni làmb boo fa ñëwee yor ay wee yu gudd dañ koy dagg man lu may dox di yore wee mën la jigéen sax pour mu leer man dama lu yàtt nag wee <laughs> oui pour muy leer mhm. ndax man samay preuve laa teg bi ba nga bee sama loxom bëri moo ko signaler bi nekk kii dafa ngëb loxom ci la ci la arbitre bi oo ma ne ma hee kaay ma ñëw waaye arbitre arbitre noonu defee ma sax maanaam joxuma sa cër du ma gëdd hee ñëwal ma ñëw mais lu des sa loxo yi mais gis arbitre bi uh-huh. yaa ngi dégg mhm. ma ne ko sa waay fii sunguf moo fi ne mu ne ma ubbil ma xool ma ne ko su ma ko ubbee day naaw ndax fii dafa bëri ngelaw mu ne ma ubbil après ci laa force ubbi sa bi su nga lu bëri génn wàll gi daa naaw mu ne ma li sa loxo yi lan la ma ne ko lii fu doon la ah, ah. Ah, mu ne da ko mu xool mu ne ma da nga am damay dagg ba dem ba ci bi euh, ku jigéen ki médecin bi jigéen boobu moo taxaw ak benn waay ba am sikkin nii sol benn yor seen seen bu waxal ci micro bi waaw ak seen ciseau mhm. yor bëgg <laughs> abay tañak xaw tañak la xaw ab ko ëmbul yaa ngi dégg ñoom gis nga tey yaa ngi may daj ko dafa rek yaa ngi dégg ci laa ñëwee ci ñoom <laughs> eh. ñu ñëw taxaw eh. may ne médecin bi nee na ma dama am ay wee man maa ngi ma ne arbitre bi dama ne dama am ay wee waa ji xool xool xool yaa ngi dégg amuñu lu dagg léegi jël bi téye sama baaraam bu ndaw bi ñëw sama wee bu ndaw bi na taxawal bi am na bi am na rek ma fel ko dafa bi am na mu ni bi am na waaw ma fel ko ci laa ko felee dem kër bi nekk eh, siflel combat bi mu ne ma siflewu ma rek mën a wéy bëri daan en tout cas bu tagul a ah. ay wéy man ma xool am mais mais su ma dégg après ci laa jékki-jékki dem o Lamine xool ñum ñum ñu xool ba fii mm-hmm. dara ne ma ah, mais gis naa Sénégal journaliste sénégalais muy Khalil. waaw ah. bëggoon na mel ni kuy xatraay ci kaw at bi bëgg a jotee moom. dafa Khalil dafa dugg gars yi da nga génne. Khalil ko man. da eh, bàyyi ma xool ma xool mën a may mais fii fi heure bi ci le combat bi yàq suñu la wax wa bi nag moo naa sauvé lamb. yaa ngi après moom Khalil moom. Mhm. affaire yooyu soo mag bi toogoon ba entraîneur 16 bi lañ jël sànni ko fële ne nga fi doof toog ba entraîneur affaire ah. Ah, affaire bu garaaw su ma ko déggee signature de contrat du seen seen su ma néewal doole xam nga loolu yow. dëgg dëgg la ndax dun dara dun ay ay malaaka. Mhm. kon yow nit bu la sonalee buur yow la neex man ku ma man la neex. dëgg la te dama ko doon nit ko man di ma sonal du ma mhm. façon xatal boo xatal boo xalaat rek barke Rasulullah daf na ko ci làmb façon xatal bu ne la ñu def ci làmb mais est daan na ñun dugalu ci benn xol foofu daan na fi ngeen yam amoon droit dox fenn ci làmb man damee ba seen fu ma neex laa doon jaar ci làmb ji fu ma neex gars ma noo bàyyi may leen xoolal ñii liñ bëgg du mante ne ki may bëri dem fu ko neex man ñu bëgg maa dugal ci benn ruxa dama ko dul nangu tey dama ko nangu ëllëg